salaamaaleykum euh, gannaaw bu ñu euh, sante yàlla julli si euh, ku tedd ki ñu am mbégte lool jàkkaarloo ak yéen di leen jaajëfal bu baax a baax a baax si dalal bi ngeen ñu dalal suñu tànk nag dafa nekk tànku jàmm ndax ku xam euh, Touba euh, xam euh, ñu tedd ñi fi nekk xam ni que ni jàmm moo nekk fii ci Touba ñun nag yàlla dafa def itam ñu nekk ay ndongo naam am na ci loo xamante ni ñu ngi ciy yëngu waaye loolu terewul tam. ñu nekk ay ndong donc ñu ñëw fii Touba euh, euh, di ziyaara ak di sakku itam ñaan ñu rafetlu lool ci liñ fi gis li nga xam ne euh, ñu ngi ko fiy liggéey te mu nekk lu am solo ci réew mi parce que ñëpp xam nañu féete bi Touba itam euh, féete euh, ci biir euh, Sénégal jàmm ji ñuy ñaan bés bu nekk Touba mu ngi ci def liggéey bu am solo loolu dafa bokk ci jàngat bi nga xamante ni jàngat nañ ko ñu gis fi itam liggéey bu am solo li nga xamante ni mooy tax itam euh, diggante euh, communauté yi ci biir Sénégal euh, mu nekk li nga xamante ni luy dolli Sénégal pour Sénégal gën a dem ci kanam ñu ñëwoon nag pour itam xool naka la ñuy mën a jokkalante ak euh, njiitu université euh, bu Touba euh, xool naka la ñuy mën a aussi nouer ay partenariat maanaam jokkalante ci fànn yi nga xamante ni aussi ñu nit yàlla defa def ñu am ci tuuti xam-xam ñëw itam pour mën a xam ci yan fànn lay université bi aussi di bëgg di yëngu ñu xool nag nu ñuy euh, jëflante euh, pour que euh, suñu ñaari université yi mën a tamit am partenariat bu dëgër ak gëstu yi nga xamante ni aussi war nañ ko mën a bokk pour mu jëriñ réew mi ñu ngi %e rafetlu itam ak di %e bu baax a baax a baax liggéey bi nga xamante ni %e sëñ Touba defal na ko diine lislaam %e mu di liggéey bu am solo loolu dafa nekk loo xamante ni ñun du ko Euh, mën a euh, tuutil parce que lu rëy la euh, li nga xamante ni liggéey na ko pour l'islam li nga xamante ni liggéey na ko itam pour que àddina bi jàmm mën fi sox que jàmm aussi mën fi law

Euh, dalale te mu jaarale ko si ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñu accueillir démb euh, ñu ngi si euh, kontaan lool parce que gis nañu fu ñu fu ñu teg ñu am ci mbégte lool itam ci facilité yu ñu defal pour que ñu mën a jokkoo ak ñi nga xamante ni ëllëg war nañu mën a euh, liggéey ak ñoom donc loolu mu nekk tam li nga xamante ni euh, lu euh, am solo la si ñun waa di dellu di ñaanal sëñ bi yàlla yokk ay fanam te mu ànd ak wër itam réflexion sur euh, les fondements économiques du mouridisme. Mais il y a le côté spiritualité, le côté culturel. Et aujourd'hui, l'université sincère dans tout cela. Cela ne peut que nous réjouir et nous encourager à être avec eux pour que ça porte ses fruits. waaw ah, nee na bëri na euh, euh, euh, bind ay taarixa euh, yi nga xamante ni euh, jot nañ ko def euh, ci wàllu yoonu murit lu jëm ci wàllu koom waaye gis nañ itam que ni am na yeneen fànn yi nga xamante ni gëstu bi war na ci mën a def ay jéego lu mel ni euh, euh, euh, aada ak ak cosaan lu am solo la ba ci sax social bi nga xamante ni dimbalante bi nekk diggante diggante nit ñi te ci wàllu yooyu université itam war nañu mën a am benn taxawaay bu mag bu ñu war a mën a am euh, ci biir seen xeetu njàngin yi lu ko lu mel ni comme par exemple ay euh, faculté yi nga xamante ni euh, ñu ngi orienté wu ci lépp lu jëm ci aada ak ak cosaan walla ay faculté yi nga xamante ni itam seen xeetu njàngin mu ngi saafonte ak diggante nit ñi euh, nit ñi nu ñuy euh, euh, nekkee ci ci ci ci ci société bi. Telles sont nos premières impressions, qui sont des impressions très bonnes, très mm-hmm. favorables, mm-hmm. et qui sont également le témoignage mm-hmm. vraiment de de ce que fait euh, Touba au nom de Serigne Touba, au nom euh, des valeurs qui fondent la communauté mouride et au nom Euh, de tous les fidèles. Mhm. Vraiment, nous sommes très contents, très mhm. heureux de constater que, quand même, au-delà euh, de ce qu'on lit, mm -hmm. mais ce qu'on voit témoigne mm -hmm. euh, d'un travail inlassable, mm -hmm. puisque c'est de génération en, mhm. génération, et un travail très fructueux pour la communauté euh, islamique dans son ensemble. Parce que euh, le voit à chaque fois qu'il y a un événement, mhm. c'est au-delà de nos frontières nationales que euh, les gens euh, viennent. Mhm. Ils viennent pour s'abreuver mhm. euh, à la source du, du, du mouridisme, mais aussi pour euh, prier, pour euh, euh, recueillir un certain nombre de choses dont Euh, vraiment les, les, le cœur et l'esprit ont mm-hmm. besoin pour vivifier mm-hmm. l'humanité que nous mm-hmm. formons. Voilà ce euh, euh, en, en les remerciant encore une fois de la qualité de l'accueil. waaw suñu njiit bi ci kàddum yu mujj nee mu ngi rafetlu bu baax euh, encore une fois ci euh, lu mu fi gis parce que euh, lu mu fi gis dafa nekk li nga xamante ni fu fu sori la jóge jikko yu mu fi gis ak xeetu doxalin bu mu fi gis dafa nekk li nga xamante ni fu mu bawoo fu sori la Euh, dafa sukkandiku nag ci liggéey nekkul nag liggéey bu tuuti waaye liggéey bu mag a mag a mag a mag a mag euh, ba génération yi nag ñëw ku ci nekk nga ci euh, def sa kéem kattan nit ñi di ñëw di taataan xam-xam nit ñi ñëw tam aussi di am liñ ci jëlee li nga xamante ni daf leen di def leen di yokk euh, loolu tax na ba euh, maxaama bi eh, yoonu murit am ak maxaama bi nga xamante ni euh, Tuuba am na ko dafa doon li nga xamante ni lu am solo la looloo tax ñuy continuer Euh, toujours di def itam suñu kéem kattan pour que loolu mu mën a mu mën a mu mën a continuer mu mën a law mu mën a euh, jëriñ euh, continuer di jëriñ askan wi mën a continuer aussi di jëriñ àdduna bi yëpp donc loolu moo nekkoon ay kàddoom yi nga xamante ni yu njëkk suñ lu mu gis fii euh, di kontaan bu baax encore une fois ci dalal bi ak euh, ci euh, facilitation yi nga xamante ni aussi defal ngeen ñu ko mu nekk li nga xamante ni aussi lu réussi réussi ñun la di leen jaajëfal encore bu baax a baax a baax